mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambok dal leen a jàmm ci seen tënkum xibaaru bés bi FC Bambuk muy club nekk fii ci euh, Koungheul niki suba samedi dafa war a jàkkaarloog euh, équipe bu Mabo war a tase moom ci demi-finale division régionale bi nga xam ne euh, dafay concerne li nga xam ne mooy région de Kaffrine ci entraînement bi nga xam ne nag dafoon nañ ko démb ci la dirigeant yi daal di profito Eh, ibbi eh, waxtaan bi ak eh, presse bi doon waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci naka la ñu waajalee demi-finale bi waaye di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy autorité ak bon volonté ak doomu Koungheul fu mënta nekk rek daal di dugal loxoom ci club bi ngir ko match yooyu nga xam ne ñu ngi koy waajal moo xam senior bi nga xam ne war na football niki samedi ak junior bi war a football beneen demi-finale bi ñu mën cee am ndoom foofu ca Kaffrine ci loolu nag coach bi di Oumar Ba kàddu yi yëkkati bokk na ci. Euh, équipe bi nga xam ne yor na ko jàpp na ne am na qualité ak euh, bi nga xam ne moom lañ soxla pour mën a imposer wu euh, foofu ca Kaffrine ndax yàgg nañ football waaye tamit jour yu am expérience ñoo fa daal di nekk. président Pape Birame nga xam ne moo jiite club bi moom tamit gën na du teg baara moom ci côté financier bi ndax jàpp na ne. Euh, charge yi dafa bëri lool ndax dañuy obligé teel a yóbbu jour yi ni ki tey ajjuma ñu fanaan fa waaye tamit am fa match si entraînement laataa ñuy affronté li nga xam ne mooy demi-finale bi looloo tax nag mu daal di sàkku ci autorité yëpp ñu daal di ci dugal seen loxo jàppale leen ngir que ñu mën a am ndam ci euh, programme yi wala match yooyu nga xam ne ñu ngi koy waajal ni ki euh, samedi pôle judiciaire financier mooy kuréel gu bees gi nga xam ne moom lañ remplace eh, CREI yi muy cour de répression de l'enrichissement illicite loolu nag mu ngi am ni ki démb gannaaw ba ñu indee projet de loi bi eh, proposé ko fële ci assemblée nationale député yi daal di koy eh, voté ci loolu nag lu toll ci 123 députés ñoom d'accord nañ ci ñu changé CREI yi teg fa PGF waaye tamit ki nga xam ne lu toll ci 36 ñoo xam ne ñoom dañoo daal di abstenir daal duñu wax ànduñ ci daal duñ ci ànd tamit loolu nag tax na ministre de la justice di Ibrahima Ibrahima euh, Ismaïla Madior Fall daal di yëkkati kàddu gannaaw ba nga xamee ne discussion yi yaatu woon na lool ci député bu nekk yëkkati kàddu wax lu mu xalaat ci euh, coppite boobu nga xam ne amoon nañ ko ci arsenal juridique gu réew mi. ci loolu nag moom ministre bi daal dinay euh, fàttali ne ak kuréel gu bees gi di pôle judiciaire financier li nga xam ne mooy chambre de jugement financier dina ci am. chambre d'accusation financière dina ci am waaye tamit chambre des appels financiers ak assistance de justice spécialisée yooyu yëpp bokk na ci kuréel yoo xam ne dinañ ko nas mu gunge li nga xam ne mooy euh, PJF muy euh, pôle euh, judiciaire financier nga xam ne jamono ji moo remplacé CREI yi Sénégal moom ci dëkk yi nga xam ne ci wàllum tàggat yaram ràññeeku nañ ci mu ngi wéy di nekk ci ñaareelu place bi ba léegi gannaaw ba nga xamee ne classement bu bees bi daal dinañ koy Euh, fësal gis nañ ne nag au niveau national mu ngi toll ci dix-huitième place waaye au niveau africain deuxième place la nekk ba léegi topp ci ginnaaw euh, Maroc nga xam ne moo jël euh, premier place africain waaye gis nañ ne tamit Maroc au niveau international dafa wàcc ay point bu baax ci fi nga xam ne ci la nekkoon ñu njott rek ne taxawaay bi nga xam ne Sénégal sélection bi taxaw na ko ci ñaari place bi lu ko gën a waral mooy ñàkk Euh, compétition bu bëri waaye jàpp nañ ne bu fekkee ne gën nañ def résultat amaana mun nañ daal di récupérer waat première place bi nga xam ne daal doon nañ koy jël. ci top 5 bi nag gis nañ ne à part Maroc ak Sénégal Tunisie Algérie ak Égypte ñoo complété yeneen juróomi équipe africain yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci wàllum tàggat yaram fii ci Afrique. bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi nga xam ne nag équipe daal dina koy fësal Sadio Mané fas yéene na dem eh, signé ji fële ci Al Nasr muy club bi nga xam ne club saoudien bi nga xam ne Cristiano Ronaldo eh, fa la nekk di évoluer gis nañ ne nag Sadio daal dinay d'accord ngir. daal di waxtaan ak club boobu ngir bu fekkee déggoon nañ ci kàddu mu daal di fay dem di fàttali na Sadio mu doon football Bayern naam sax ñëw bi mu fa ñëw xaw na ko indil gàllankoor yu bëri ndax ni mu waroon a imposé woo daal dul am rawat eh, boo ko comparé ni nga xam ne noonu la taxawee woon club bi nga xam ne fa la jógee woon di eh, Liverpool. loolu nag tax na bañ ko defaree offre ci Al Nassr muy club saoudien bi nga xam ne Cristiano Ronaldo fa la nekk Seko Fofana ak Brozovic moom d'accord na ngir waxtaan ñoom ñu xool yan terme contrat la ñuy fisa